ci marché Ocass fii di kër njaboot ak sëy ajuma bi ñu génn ñu amoon ay jafe-jafe seen diggante ak way takk der yi ba tax ñaar ci ñoom sax ñu jot leen a jël ba tax ñaar ci ñoom ñu jot leen a làpp-làpp yu metti lii amee rek benn fan ginnaaw ba commissaire yëkkate ay kàddu di ñaaw lu doxalinu ñenn ci policiers yi ñu wax ne dañuy dal ci kaw askan wi kii nga xam ne nii moom la mbir mi dal ci kaw di ñu nettali naka la demee. ñoom dañ fay ñëwoon am na benn magasin bu nekk côté bii magasin boobu ñoom ñoom lañ doon dem di tëj léegi euh, si noonu maa ngi am sama benn rakk bu ma doon waxanteel boobu mi ngi ñu fekk si kaw ba mu yàgg si si ni may waxanteeg moom ba mu yàgg téléphone am di sonné léegi mu ne nañ ko may tuuti na na na na naa xaar tuuti mu wuyu mu wuyu ki koy woo si biir wuyu googu nag si lañ taxawee si balcon bi biñ taxawee si balcon bi léegi gars yi ñoo xam te ne ñoo nekk si oto yooyu jékki-jékki rek am ku génn bi mu génnee nag saaga ndey na eh nangam taanaan ndeyam wàcce sa téléphone. bi mu ko waxee bi mu ko waxee loolu léegi si la wàccee téléphone léegi am ñoo xamante ne dañoo bëgg a daw am na beneen étage bu nekk fi suñu côté nii mu bëgg a daw dugg foofu keneen ki ne ko du foofu fii la ñu bëgg a ñëw dugg fii nag léegi si la ko sama rakk bi rakk bu góor bi ñëwee ne du ngeen dugg fii c'est parce que wanu leen ñu benn résultat bu ngeen fi war a mën a duggee léegi si sur le champ noonu laa gis kenn si ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo ànd si troupe boobu ñu daw am am ko daw dugg ci kanamu jëm si kanamu bi ma xamante ne dana am lu muy dana am na lu muy waajal si la tournée nag mën tamit ma profité dem eh, kar ko bi ma bi ma kare bi ma firee loxo bi ci la paaka bi waddee fi ma sëggee ba koy waaj a fort rek ci la waay si ñoom jàpp sama loxo weñ ko sama ginnaaw léegi nag biñ ñu léegi bi ñu waxee ñu ne nag léegi dañ yóbbu ñu ne leen garaawul nañ leen nañ leen dem ci lañ demee nag ba àgg ñu jël ñu am ci benn roq bu ñu dugal foofu bi ñu roq bi ñu dugal nag ci lañ ñu jàppee dóor ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu prix de sept personnes ñu détourné waat ñëwaat bi ñu ñëwee ñu indi ñu si euh, kiiwu control bi si contrôle si contrôle bi foofu si police biir janatu si lañ taxawee léegi ñu toogee noonu ba mu yàgg ñu tourné waat ñëwaat démarché waa ji ne ko euh, ne ko kii suñu élément la ñaar ñu suñu élément la ñu leen fi indi woon dañ leen soxlawaat léegi si biir soxlawaat googu si lañ ñu indiwaatee dugalaat ñu si biir dóoraat ñu dóoraat ñu dóoraat ñu ba seen xol seedaat ñu door ñu door a ñëwaat kii te ba en même benn ñu ngi yore seen ñu ngi yore seen benn kuur bu gàtt ñu ngi yore seen benn yat mooy yat yooyu noonu nga xam te day am bopp ak buum boo xamante ne dañ ko takk ñetti takk fasal ko bopp bi c'est parce que buum bi sax man moom lañ door sama nopp bi nii ba sama nopp bi ba sama nopp di naaj ci génnee deret ma waral kii sama nopp bi nii yu yëpp ñu jàpp ñu di ñu dóor comme koo xamante ne dañoo jàpp jaam wala dañoo jàpp ko xamante dafa def dara wala dara. njaboot gi nag ñoom ne fas yéene wuñ ñoo bàyyi benn yoon bi mu sedd. ginnaaw bi ñu amee certificat médical fas yéene nañu déposer plainte ngir mbir mu leer. bi ñu génnee ñu libéré leen. nopp bi dafa fanaane si deret bon après ci lañ gis nopp bi xaw a new newi parce que waa ji dañ leen évacué woon ci benn chambre bu ndaw di leen torturer foofu après ci laa ko ni mbagg mi mënoo mbagg mi mënul yëngutu après ginnaaw gi ci lañ xool ginnaaw gi am ay ay ay rëdd yu xaw xaw de waar bon loolu dañ koy déplorer dañ koy déplorer parce que xamuñu lan la. yóbbu nañ leen avant muy dugg ci gri bi ñu yóbbu ko ci benn chambre bu ndaw di leen torturer foofu beneen bi menace am na parce que nee nañ ko xam nañ fi nga dëkk te daañ fa ñëwaat léegi nag loolu laa bëggoon déplorer bon au niveau du commissariat man aussi sama jëm bopp bon je travaille avec l'administration du Sénégal mais man sama man dégg naa le commissaire barki démb ci boppam mu naan dóor la wuñ kenn man loolu dégg naa ko léegi loolu à ce jour là la bi am ñu bëggoon xam léegi nag booy bi il a en parce que loolu la ñu wax docteur yee ko wax waaw loolu la ñu wax waaw certificat médical baa ngi nii am nañ ko léegi nag dañuy déplorer bu fekkente ne yoon am na ñu xam bu dee yoon amul aussi ñu xam non li ñu fas yéene mooy dem ci yoon parce que boobu dafa blessé depuis démb guddi ba tey mënul mënul mënul mënul mënul nelaw aussi ñu xam na exactement qu'est-ce qui se passe dedans dañuy porte plainte contre gars yi ko def nopp bi dafa am waaw noppi bi dafa new yi pour le moment xëy na deret bi wàcc la mais dafa new yi si bi mooy ay fan a ngi nii ñu nemmeeku lii di policier yi di dal ci kaw askan wi ba tax na ñenn ci ñoom di sàkku ci kilifa yi ñu àddu ci bala mbirum di ëpp loxo. fii sama kër maam la kii sama jarbaat la am na loo xam ne nii dañ koy déplorer di ko ñaawlu di ko ñaawlu ba fu ñaawlu yem li tax mooy lii dafa doon yoo xam ne nii lu fi war a jeex la ndax dafa doon loo xam ne nii. ay ay ay pratique yu récurrente la dafa bari loo xam ne dañ koy nemmiku ci diiwaanu Touba ci diggante police ak population Touba bi léegi nag liñ bëgg mooy lii na dakk bis ni tey lu ko moy ñun de li nga xam ne nii moom lañ fas yéenee def parce que day français tubaab day wax ne des stratégie ne se dévoilent pas elles se déroulent ñun nag liñ fas yéenee def duñ ko wax mais giñ naa ko ci Cheikhul Khadim ne maanaam lii bu dakkut ëllëgi ci si biir lu mën di xew na kilifa yi nga xam ne ni ñoo nekk ci Touba xam ne maanaam seeni taalibe moom lañuy ñuy teg ay nattu di leen teg ay ñaawteef yoo xam ne mënuñ koo faj mbir mi nag bu demee ba sës nit ñi danañ ko fajal seen bopp te dinaa leen xamal ne lii am na loo xam ne nii bu fekkoon ne ci ap koñ la boo moytu danañ fa fekk des morts d'hommes